yaa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziara di leen balwaq te it di leen balwaq di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool tànd ak wér di ko ñaanal xalif général de Baye Fall Serigne Cheikh Jëmb Fall ax mbooleem kilifa yi diine yi mbokk yi ñu ngi leen di balwaq ci weeru sel wi nga xam ne moom la ñuy tàbbi muy weeru koor kooruk atum 1440 ginnaaw gàddaay ak yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ñu war koo door fii ci Sénégal talaata juróom-ñaari fan ci weeru mai atum 2019 ñu ngi ci bu sell bi di Touba dëkkub jaamu yàlla dëkk boo xam ne ki so ki ko sos di Cheikhul Khadim dafa fonkoon lool weeru koor loolee mbooleem taalibe yi nga xam ne ñoo fi nekk ci dëkk bu sell bi noonee lañ fonkee li nga xam ne moo di weeru koor gi tey jii di guddi gi njëkk ci euh, naafile yi nga xam ne ñu koy amal ci jumaay Touba ji moom moo tax mbooloo yi ñu ngi bàyyeekoo ci quartier bu nekk ci biir euh, dëkk bi ngir ñëw teewee li nga xam ne moom moo di naafile guddi gu njëkk gi fii ci jumaay Touba ji loole nag nekk liggéey bu am solo boo xam ne waa daayira Muxaddamatul Xidma waajal nañ ko def ci organisation bu am solo ndax euh, lépp loo xam ne mooy matuwaay jël nañ ko ngir li jëm ci naafile yi nga xam ne mbokk taalibe dañ koy bëgg teewe teewee ñu ànd kook ñoom euh, ñi nga xam ne sax ñoo di am na taalibe yoo xam ne dañuy bàyyikoo ci yeneen i dëkk ngir ñëw fii ci euh, jumaay Tuubaa ji ngir teewee si li nga xam ne mooy euh, guddi gu njëkk gi ci naafila yi waaye umee fi li nga xam ne moom moo di koor gi moo tax gis ngeen oto yu bëri yi embouteillage yi nga xam ne am na fi nga xam ne moo wër jumaa ji taalibe di ñëw ci jumaa ji ak yeneen kilifa yi di bàyyi ko fu ne ñoom it ngir ñëw teewee li nga xam ne moom moo di naafila gu njëkk gi fii nii ci jumaay Touba donc mbokki téléspectateurs yi ñu fas yéene ànd ak yéen rek ci euh, programme gi nga xam ne moo jëm ci weeru koor gi ci lépp loo xam ne day bàyyi ko fii ci résidence Khadim rasul ci waxtaan wi am solo yi nga xam ne day am ci jumaay Touba ji waaye ci njàngu kuréel gu am solo gi nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir yàlla fi yàgg loo ànd ak wér at mu jot da koy ànd ak waa daara Hizbut Tarqiyyah euh, ci euh, ginnaaw tàkkusaan rek fii ci résidence Khadim waaye mboolem activité yi nga xam ne day am ci biir dëkk bi lépp rek jëm ci dundalaat weeru koor ni nga xam ne noonu la ko Cheikhul Khadim fonkee woon bu baax a baax dëkkam bi nga xam ne euh, muy dëkkam bu sell bi gën ko fonkale li nga xam ne moom moo di weeru googu le kon mbokk téléspectateurs yi ñu ànd ak yéen tey ci guddi njëkk gi ci fii ci jumaay Tuubaa ji ngeen dund ak ñun temps yi nga xam ne moo fi am ak taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw ngir ànd ak euh, ki nga xam ne moo di Serigne Fallou Mbacké mii jiite euh, li nga xam ne moom moo di naafila yi am solo yi nga xam ne mu ngi koy amal fii ci jumaay Tuubaa ji man laa sharika lahu وسي وما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقلبي بزال يا مليك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 نصيبي تين منك يا الله أنت سلام لاسي سلام تكن لي من ويا بنفسي بتين منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابلي الأمن في الدارين يا الله وبالمعيمن لس أبي استرايك ما خبيت سرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز الأسي أطيب بإيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إماك الجبار دون لقم كل انقضاء بنفسي لاخترت يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون الإنقاذ كل الإداء بنفسي لاخترت يا الله كلام طريق لا في كبر بلا كلاف يا متكبر تلك يا الله يا خالق الخلق لما أصاب الدم بالبر والسري والرلوان يا الله يا بارع الخلق خذ لنا فدوناسا وخندي الأجر للجنات يا الله أنت المساور قل للنبي بسارا وساورا ليادو المكر يا الله خذرت لي كل سن بالغد أتيت به لسبب سبريايا وابح يا الله خلقت لي كل سب بالغد أتيت به لسبب بسكريايا خضار يا الله خلقت لي ربيعك دعي بلا سبب مني عمدتك يا xaar yàlla وابتلي من كاسو لنفا خمس ألتي فلا كسو ريايا وأبحي الله لغوت أزمان لج يا من له أموره وغوت لي رصايا رساخ يا الله فتات لي كل بعث بن كنت ذاتئا لأوليائك يا فتاة يا الله علمتني القيبات تعفت منتميئا أتى الأليم لاسين علمت يا الله خبرت يا قابل عسى وانصرفت لخير نبيك الأقدار يا الله بذاك يا باسط الأمال لي بريدا فاذكر مباستي دارين يا الله بذاك يا باسط الأمال أعمال لي بريضا فاذكر مبعثتاتي دارين يا الله